asalaamaaleykum bu yéen ñuy siiw si Wassare Lamb Wassare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois seen émission jàngat lamb doorati na ñu fas yéene cee waxtaan nag kon niñ koy defee rek nee naa leen euh, Wassare euh, dañoo commencé li nga xamante incha allah dañ koy àggal ndax mën naa wax ni sax euh, presque jeexal nañ muy. Euh, bilan écurie euh, di béggewaat nag ñëpp képp koo xamante ne rek yow yaa ngi euh, teewlu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ñu ñu li may wax rek partout dans le monde mais waa diaspora bi amuñu seen fay ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ndax gis nañ ñi ciy jàppee ah di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla rek li nga xamante ne moom mooy màggalu Tuubaa bi lépp lu fa waaye yàlla nangu ci barke Seydina Mohamed di ñaan rek ñi nga xamante ne ñoom accident yi fi am ñi fan ñi nga xam xamante ne ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi ñoom ñëpp yàlla na yàlla fëgg seen bopp yàlla wéral leen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla yërëm te xaari leen aljana ah, di béggeewaat nag ñëpp ah, kàggu tey nag dañuy ñëw ci bilan écurie Père Diaw ah, ndax niñ ko defee woon rek chaque jour noonu lañ koy indilee benn par benn écurie Père Diaw nag nekk mën nañu wax ne biir Grand Yoff la nekk ndax Grand Yoff mën nañoo wax ne écurie boobu noonu moom moo jur ñëpp ndax tey ku ne Grand Yoff nu mobile 2 boo xamante ni ay xale ñoom ñoo fa nekk équipe boo xamante ni Pape Diaw moom moo géré loolu mu nekk koo xamante ni nag daan tëgg làmb nekk koo xamante ni daal daan tëgg ci mbapat yi am na mbër yu bari yoo xamante ni tëgg na leen ndax mën nañu wax ni miin na géew bi moom moo yor ñooñu ñoom nag seen bilan ñu def trois combats trois défaites mu nekk bilan boo xamante ni wax dëgg yàlla daal mën duñ ne assez bien duñ ne passable mais mën nañu wax ni c'est un bilan mauvais waaw mu nekk euh, nit ñi nag. kon ñoom rek niñ ko euh, comme que dafa am loo xamante ne moom moo fi xew muy feebar bi ndax ñu bari dañ koy jël comme excuse ndax euh, euh, ñi ngi naan corona bi parce que amoon na ay yeneen combat yoo xamante ni ñu ngi foon ndax am na ay boy yoo xamante ni macha allah ku ci mel ni Noiro moom mooy tête de file écurie bi ndax gis nañu moom amoon na ci combat amoon na ay xale yu bari yoo xamante ni ku ci mel ni boîte vocal moom mi ngi ci woon ak ala accu ñun ñëpp ay booy la ñoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir écurie bi euh, ñi ci bëree nag euh, ku ci mel ni euh, ñagas junior bu Cheikh Mbaba moom moo daan Vita bu Père Diaw ak Sita Poul bu Kër musaar Mbooloo moom moo ci daan tamit fils de Yékini jeu technique de mi nga xamante ne moom moo tuddee boppam jeu technique mi nga xamante ne dafa bëgg a jël li nga xamante ni moom mooy <laughs> <laughs> CNG de lutte bi euh, moom moo daan tamit Noiro mooy ñi nga xam te ni Yékini moom moo ci daanu ak euh, ki nga xam te moom mooy Vita ak Noiro seen tête ñoom ñoom ñooy trois combats trois défaites yi moom may xale yoo xam te ni waroon nañ cee bëri ku ci mel ni boîte vocale ak ki nga xam te ne moom mooy Ala Accu euh, te tamit am na coach bi nag kàggu am na loo xam ni wax na ko ci bilan bi dañuy dem déglu réaction te ñëwaat te la wax ci li ne moom mooy bilan écrit bi acca ñu dem asalaamaaleykum Fatou Bintou maa ngi maa ngi nuyu maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax kontaan naa si liggéey bi kontaan naa itam si kii bi su ma sañoon dinaa ñëw ba foofu su fekkee dinaa ko xam incha allah euh, concernant nag bilan bi moom xam nga ni bilan bi moom dañu départoon mais amoon nañu ay relevé yoo xam ne dañu doon préparé pour ñoom ñu jëlaat ko far yàlla suñu borom def ni kii bi ñëw euh, corona bi ñëw euh, parce que si la si mars bi noonu sax si la boîte vocale waroon a bëre ak Pape Socé mais après Pape Socé bon xaw a dellu moom mooy Pape Socé bi nekk rek énergie mais boîte vocale doon la bëree moom te donc déjà itam euh, même noiro moomu pré na beneen combat moom ak jaasi pël bu Soumbédioune bon bilan bi nekk bilan boo xam ne déjà nu mu commencé parce que comme dama bañoon ñu xam ne dañuy découragé te léeg-léeg xale yi parfois dañuy am yoo xam ne dañu siy dugg te du ñu xàmmee mbër mi wala duñ ko topp bon par exemple si biir loolu la xale bi jël combat boobu mais bi ñu koy jël man parce que lu si bari yëguma ko fin bi lañ moo ne daal diw woo na ko mu dem bëgg a ko topp tol mu dem euh, fële euh, gël tàppe xaw ma laal sañu tasee daal ba mu jël avance bi ba jël lépp ne ma diw laa jël eh, ma yaakaar ne xëy na peut-être nit boo nekkee ak sa kilifa balaa nga def dara war ko mën a xool war nga ko mën a laajte ba xam kii mooy kan parce que yow benn combat nga am benn victoire sa deuxième combat boo koy jël war nga mën a laajte sa kilifa ndax combat bi war naa ko jël wala yooyu mais xale yi ak seen fugu at ñi ñuy àndal dégg nga ci ak di dem sans kilifa waaw loolu moom metti na ma trop ba tax ni daal bilan bi déparé nii bon noiro concernant aussi tamit moom tamit noonu na bëgg fàllu moo ko ñëw proposé ko avec la somme nekko ko comme da nga war a bëri avant grand combat spécial la yàgg soog a yëg am nga quatre victoire bon aussi moom itam mu dem waaw waaw waaw moo tax ab waaw parce que xale yi boo xoolee xam nga xale yi toujours dañu am seen euphorie bi ñuy àndal parce que déjà bon xam nga rek xale bu ñuy àndee ak seen supporters yi bon encore aussi da ngay amee xale di ko entraîner yow doo gis mosoo gis ak papam xanaa jour combat bi ngay dem seen kër mën a xam ne papam wala yaayam kon donc xam nga déjà tamit xam nga coono boobu premier depuis 2008 maa ngi yore ay xale di tëgg ay mbapat ba mu mujj 2009 2010 laa laa soog a dugg ci làmb ji ci laa am sama récépissé dégg nga organisé pour commencer dugg dëgg la nag bon au départ c'était un peu difficile parce que yoroon naa ay xale ñu dem ñi waa Grand Yoff mbooloo ñëw récupérer leen donc déjà parce que seen mbër yi si ëpp Grand Yoff mbooloo seen mbër yëpp zannik si man lañu nekkoon xale yëpp maa leen formé jàng yóbbu leen mbapat jàng leen mbapat téye ko fii ba ñu yéeg mais xanaa ci biir loolu buñ doon am ay victoire su ma mosaan dem seen kër yi ñu se présenté ma seen papa seen yaay donc wan na leen xale yi ñu si ëpp seen kilifa yi bon peut xanaa bu ñu tekkee rek dañuy soog ñëwul ñëw ne ah nangam ak nangam mais si ëpp da ngay liggéey ñoom di nga liggéey ñoom ba zéro ba nga egg dix ñu say commencé di la xàmmee boo eggee quinze nag day fekk ñu naan bon nangam jéemalal sa bopp wala mënal lii wala sa entraîneur bi daf laa bañ kon donc li si ëpp ñoom ñoo koy jéemal seen bopp ñoo koy jéemal seen bopp dañuy dañuy def loo xamee ni at euh, xale yi ak ñi ñuy àndal di représenter comme ay genre ménager te yoo xam ne yow doo ménager parce que écrit bi dafa am suñu ménager Matar Ndiaye mooy ménager bi dégg nga bëgg a fàllu ainsi de suite ménager la parce que bu ñuy def sama kii dama am ñaari ñaari ménager yi liggéey ak man kon donc bu fekkee nit ki day jël dafa war a jaar ci ménager ba wala bu ñu ko joxee combat mu laaj ménager bi ménager bi laaj président écrit bi ne ah est ce que mën nañ ko jël wala mën nañ ko jël wala mu waxam man doon sax balaa muy gën a sori mais xam nga dañuy dem am ñu ñuy àndal waxante ñoom ba ex yow yow doo dul am naa combat kan la lay jël kan moo la jël ak kan naa na ah am na nooy demee sa doom yi ci biir dañu yaakaar ni xëy na yooyu nga bugg sa doom ba dem ñoom buggoo ñu dem yow yaa ma gën a xam mm, olof nu muy réagir ak mbër nu mu gàttee voilà mu tax am na yoo xam ne damay mujjee bàyyi mais boo demee ba xool rek loolu moo dal Vita et puis moo dal Noiro ñaar yooyu yëpp Noiro bu ñu jël combat bi yëguma ko dégg nga ci bi ba ci biir xamee ni loolu moo fi sës après ñu soog a ñëw wax ak man am na si seen benn si staffam ñu si ñëw ne ma ah père bi kat ñu mën a toog waxtaan ndax kii at lii lii at lii at lii waaw ah, kon jël ko ba avance ba ba pare soog ma ñëw di wax ah man su leen delloo leen ko day gisee leneen. waaw moo tax ma mujj leen bàyyi ñu continuer loolu moo ma leen wan ne xale yi amuñu amuñu ndigal. bien sûr vous êtes euh, sur votre émission euh, ni ma koy waxee rek euh, jàngatu làmb euh, Fatima Dia déglu nañ ki nga xamante ni moom mooy Pape Diaw mu nekk coach écurie per Diaw dégg nañ li mu wax na ci li nga xamante ne moom mooy bilan bi nee na bilan bi baaxul. parce que euh, amoon na ay am na ay combats yoo xamante ne li ci mel ni trois combats yi nee na ñi ñu ci jàpp ñi ci am combat yëpp moom yëgu ko manager moom moo leen di jox combat ñoom ñu dem jël ko sans consentement am nee na euh, ki nga xamante ne moom mooy noiro ak euh, combat bi ñu ko doon jox da ko bañ après combat bi neexu ko woon faf mu ñëw bëre defet fekk ko ci ku ci mel ni ñoom vita ba ñuy jël. combat bi yëgul tinul dafa jékki-jékki ñu ñu joxe combat bi te neen loolu yëpp day joué ci li nga xamante ni moom mooy écurie ndax mbër boo leen di tàggat ñoom dañ la war a déggal mais pas dem di jël ay combat yoo xamante ni si du n'importe quoi ah, wax na tamit nee na incha allah saison bi di ñëw ñaan nañ yàlla rectifié wu ndax euh, ñëpp xam nañ bi bilan bi ñu def nee na baaxul mais nag dinañ rectifié bu baax a baax pour mën a ñëwaat ndax nee na am na xale yoo xamante ni am nañ ci ñoom yaakaar ku ci mel ne boîte vocale ñu tudd léegi sànq ak ala accu parce que ñooñu ay xale lañ te ñoom amoon nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax ñu ngi doon wax si seen i combat mais comme que coronavirus bi nag moom moo ñëw wàccee lépp loolu moom moo tax euh, nee na daal écrit bi demee noonu mais man li may wax rek mooy ñi nga ñoom ñooy euh, xale yi ndax mënoo nekk sa entraîneur moom mu sonn ndax nee depuis 2010 moom mi ngi ci sonn bien vrai que ni jàppale yooyu yëpp xaw naa metti kon nag xale yi ñoom dañoo war a jàppale li nga xamante ne moom mooy seen coach yi ndax ñoom ñooy sonn ku ci jël combat war nga wax ak moom mais doo dem jëli combat wax ak sa manager dem sans consentement coach bi te manager bi du ñëw di di la di di la contactal du ñëw di la entraîner kon donc euh, ñi nga ñoom ñooy écrit Père Diaw yu fa nekk de grâce nañ déggal ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen entraîneur écrit bi nag nekk na écrit boo xamante ne am nañ ci yaakaar ndax neena na xale yu bari tàggat nañ leen Grand Yoff mujj gi xale yi ñoom ñëpp ndax euh, xale yi ñu tàggatoon yëpp ñoom ñëpp dañ leen a jëlaat ber seen écurie euh, mu écurie Grand Yoff mbooloo ma ci nuyuwaale bu baax a baax bébé Seye mu nekk doomu maître euh, Ousmane Seye mu nekk koo xamante ni day jàppale xale yi te yàlla tax parce que loolu gis naa ko bu baax a baax a baax euh, xanaa nag di jox ñëpp dig daje ba prochainement mais kàggu li may tàggoo mooy di wax rek gàmmu Tiwaawan ndax gis dégg nañ li nga xamante ne moom mooy suñu xalif bi lu mu wax muy sëñ Mbay Si ñuy wax rek gars yi ñun polémique amu ci polémique amu ci kenn ku nekk euh, màggal Seydina gàmmul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk foo toog mën nga ko faa gàmmoo ndax euh, comme que nag sëriñ bi moom mooy xalifi bi moom mooy lépp kenn ku nekk la mu wax nañ bàyyi commentaire yi ndax moom wax na kenn ku nekk daal la nga war a jëfe na nga ko jëfe wasalaam di béggee nag ñëpp képp koo xamante ni moom ñoo moo ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV di ko béggee bu baax a baax moom l'infatigable kàggu mi nga xamante ni day sonn si bu baax a baax séeréer bu naais Basirou Diouf di ko béggee di béggee toute l'équipe ah, di jox gars di tëje prochainement, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.